ginnaaw bi ñu leen nuyoo sant leen gërëm leen ci li nga xam ne mooy yëglekaay yi nga xam ne moo fi rot tey jii ci suba gi nga xam ne daanaka dañ koy commencé ah, li nga xam ne moo ci gën a fës nga xam ne Idrissa Gana Gueye ah, dana ci ñëw Papa Gueye mi ngi ci biir record yéen a kay Balla Gaye ak Modou Lo ñoo nekk ci sunu lamb ah, di fa jaaba jonge Ismaïla Sarr Izo moo nekk ci stade yéen a kaay nga xam ne surnal yooyu yëpp benn par benn danañ leen ko taxañal teqan ni leen ko léegi nii nga xam ni loolee day nekk revue de presse boo xam ne bu complet lay doon ci li nga xam ni mooy revue de presse nga xam ni war nañ leen koy faram-fàcceel ci suba gi nga xam ne day am solo euh, tombe ak euh, alxames nga xam ni euh, tey jii mi ngi tombe ak benn fan ci weeru tubaab yëglekaay yi ni leen ko waxee woon Idrissa Gana Gueye nga xam ne dikk nañ ci ak total li nga xam ne mooy njënd ma ak jaay ma nga xam ni moom la ko Paris Saint-Germain daal di yóbbuwaat fële ca Everton nga xam ne àgg na fa contrat ya nga xam ni war na ko fa belliwaat dana doon contrat boo xam ni bu yaatu lay doon nga xam ne détails yi danañ ci dikk léegi moom mi nga xam ne mooy Idrissa Gana Gueye spécial lañ koy def yéen ak nu révélation yi nga xam ni wala boog révélation yi nga xam ni di doomu sénégalais boo xam daanaka ca prance la doon football muy Mendy mi nga xam ne fintoon na ci procès boo xam ni doon na ci yëngatu nga xam ne daanaka bari na ci yoo xam ni mënuñu koo yëkki sax ci journal Walf Sport wala Tribune Sport euh, moom ci li mu ñëw ci yëgle kaayam Abdou Diallo mi nga xam ne lay tuis euh, teg na ko loxo fi mu toll nii euh, Bayern Munich tey jii boo jombul war na fa xaatim ab contrat boo xam ni contrat bee bu am solo lay doon moom mi nga xam ne moo nekkoon fële ca Paris Saint-Germain la ñuy wax ndax fi mu toll nii daanaka jóge na fa ma nga war a dem fële nga xam ni mooy championnat Allemagne. keneen koo xam ni ah, maanaam ah, mi ngi ci làmb ji waaye tamit wala ñeneen ñaar ñoo xam ne ñu ngi ci làmb ji ba tey ah, di ko doxal. mu nekk Balla Gaye 2 ak Modou nga xam ni euh, kenn ku ne ci ñoom ñaar dégg na li nga xam ni euh, mooy euh, roi des arènes muy géejawaay ak fi nga xam ne moo nekk parcelle nga xam ni gis-gis la boo xam ne ñoom ñaar yëglekaay bi andi na ko ci gis-gis bi nga xam ne saison 2023 2022 loolee lay doon Ismaïla Sarr iso mi nga xam ni fi mu toll nii moom it daanaka su fële nga xam ne mooy Watford bëgg nañ ko bàyyi waaye nag la muy jëf fi mu toll nii méngoo na ak maanaam ñu bëgg ko faa yokk ab salaire itam mu toog foofee ndax toog moo leen di gënal ndax bu boobaa nii mu commencé ni su ko konnee dana yéegaat la nga xam ne mooy première ligue Papa Gueye moom ma nga ca première euh, maanaam ligue euh, wala boog ligue 1 euh, bi nga xam ne première njobaxte bu biñ ko defal mooy ba nu ko defee partant wan na leen ni man du ma équipe bu ndaw bu nu yóbbu ay Lorient équipe yoo xam ni daanaka fi mu toll nii Marseille su ngeen ma gëmee teg ma loxo mën na maa dem sama yoon gone ak Sénégalais gi loolee mi ngi ko wane ci benn ba bi nga xam ni démb gone Marseille doon nan football mbëkk boo xam ne daanaka ci kaw air bi la ko jëlee xe kër gi loole am solo bu baax a baax ci li nga xam ne mooy yëglekaay yeneen journal yi nga xam ne euh, ñëw nañ léegi ci kanam ña ngi koy faram-fàcce léegi nii ci kanam tuuti kon ñu ngi leen dox ndaje euh, ci YouTube bi encore une fois merci euh, ci abonnement yi